actualité am faw nga àddu ci mhm. xëy na liñ ciy àddu du mën a bari ndax actualité bu recent la euh, yàggul xëy na recul bi ñu war a am ngir analyser ko euh, xalaat xalaat ci xeltu ci mën naa bañ a xóot lool waaye daal mën nañ cee wax sunu sunu gis-gis benn bi mooy li ci jiitu mooy jàpp nañ ne euh, su man duma jurist waaye juriste yu mag yi nga xam ne yëpp déglu naa leen dafa mel ne dañoo wane ne droit mayewul ñu mën a reporter élection yu mel nii ndax mësta am guléet euh, kon juriste yi yi nga xam ne mënees na leen a doy ñu ci bari wax nañ ne reportu élection yi wërta mën a nekk ndax constitution bi mayewu ko ndax constitution bi dafa tënk ne président suñ ko falee day am àpp boo xam ne su jeexee jeex na kenn mënatu koo yokk uh-huh. d'ailleurs li koy wane rek mooy bi mu waxee ne mandaam bu njëkk ba doonoon juróom-ñaari at moom daf ko bëgg ñu wàññeeku ci juróom mu def juróom rek Euh, bi mu demee conseil constitutionnel dañ ko ne euh, juróom-ñaari at yi mënoo koo wàññi lu nit ñi jox la daal moom faw moom ngay def waaye mënoo yokk mënoo wàññi ginnaaw mënutoon a wàññi booba nag normalement juriste yi li ñu wax mooy wërta mën a wàññi itam mhm. loolu benn la beneen bi mooy euh, ku ne xam na ne réew mi bari nay jafe-jafe ki coono mhm. xale yi nekk ci prison yi économie bi taxaw Euh, daanaka mën naa ne ñetti at a ngi nii depuis deux mille vingt et euh, réew mi dafa taxaw ci lu baree bari ci wàllu koom-koom ci wàllu croissance taux de croissance ñëpp gis nañ ne wàññeeku na pétrole bi waroon a démarrer sax am na retard ba nee nañ daanaka fekk at xëy na ci lay démarrer waat. Mm-hmm. ci lay démarrer ndax loolu lépp rek xëy na dafay am dafa ay conséquences la ci euh, xew-xew yi am ci réew mi jafe-jafe yi am ci réew mi ci wàllu politique. kon nag euh, ñu baree bari dañoo yaakaaroon ne élection yi dem génn ceeg jàmm réew mi tegewaat ci yeneen loxo wala tege ci loxo yoo xam ne moom la Sénégal yi tànn ndax li am solo rek mooy loolu Sénégal yi seet ki leen doy ñu tànn ko. Mhm. Euh, ñu baree bari li ñu yàkkamti woon mooy élection yi jàll féete suñu ginnaaw euh, ki ñuy fal mën a doxal économie bi mën a jógaat nit ñi nit ñi mën a nokkiwaat réew mi mën a. Euh, tegewaat ci ci ci ci yoon. loolu wax dëgg yàlla suñ <coughs> bëggee prolonger jafe-jafe yi réew mi nekkoon ci at yi loolu ñu bëree bëri dana metti ci dana metti ñoom. te itam euh, suñ fàttalikoo jurisprudence sëñ Sidi Muxtaar 2012 euh, bi conseil constitutionnel àttee ne Abdoulaye Wade mën naa sàkku ñetteelu mandat sëñ Sidi sëñ Sidi Muxtaar ci kàddu porte dafa waxoon ne ginnaaw conseil constitutionnel mooy attekaay bi nga xam ne ñoom la yoon jox loolu. wax nañ ne euh, na lay Ablaye Wade président Ablaye Wade mën naa defaat troisième candidature. na ñëpp dem campagne yi te tënku ci loolu. loolu jurisprudence la bu fi nekk boo xam ne kon dafa mel ne. tey jii itam suñ tolloo ci conseil constitutionnel joxe décision jurisprudence boobu suñ ca delloo day wax ne ni kon nit ñi dañoo war dem ci campagne dem ci élection ndax suñ Sidi Moxtaar loolu la waxoon ci jamono jooju. kon yaakaar naa loolu itam war nañ ci bàyyi xel. kon daal sama sama tënk yaa ngi tudd ministre yooyu fi ñëw loolu xëy na awma ci information yu xóot yu leer waaye li ma ci mën a wax rek mooy euh, sëriñ bi daal kilifa la waaye itam mag la. am na yoo xam ne wax na lu leer ci ne nañ ko may ci jamonoy politique ci wàllu politique politicienne nañ ko ci may. Mhm. kon nag jàpp naa ne kenn warul di ñëw di ko perturber ci li mu mhm. nekk ndax poroxaan la jóge jànkoonteeg coono yu baree bari ak at mi at yi mu am. Mhm. su ñëwee ne nañ ko may. Euh, day def retraite spirituelle day fatu. wax dëgg yàlla ñëpp dañoo waroon tënk ci loolu. bañ ko dugal ci affaire par parlooy politique yi. wala jafe-jafe yi nga xam ne euh, am na ci. homme politique bi ñu koy créer moom tàgguwuñu ko. waaw bi ñuy bi ñuy jàpp datu élection yi kenn laaju ko xalaatam. Euh, suñ koy dàq nii itam même suñuy mel ne wane dañ koy consulter wala dañ koy kii waaye kenn laaju ko xalaatam it ndax def nañ li ñuy def ba ñëpp yëg ko kon bu kenn jéem a defi pexe pour impliquer ko. wala nga exposé ko wane ne moom da cee ànd wala dañ ko cee consulter wala da cee am benn kàddu déedéet sëriñ bi moom li mu waxoon leer na. na ko ñëpp may ci wàllu politique euh, dafa nekk ci fatu kon euh, li xew nii léeg-léeg homme politique yi ñaare dañuy def seen i manœuvre ak seeni pexe ba yu mel ni su amee ñu bëgg cee pour am doole pour am cëslaay pour am laay ak mm-hmm. wéeruwaay. Mm-hmm. dañ ciy bëgg def seen i pexe ak seen i def seen i euh, lijjanteeg seen i manœuvre ba noppi. Mm-hmm. bëgg ñëw nag mel ni ku ci taqal sëñ bi. su ko defee exposer sëñ bi. nit ñi di dal ci kawam ñenn ñi di ko saaga ci réseaux sociaux yi ñenn ñi di ko wax yu ñaaw yoo xam ne yoonam nekku ci. Mm-hmm. wax dëgg yàlla loolu euh, képp ku dib taalibe war ngaa xam ne au delà Cheikh Mouhamadou Mountakha ak ni ko yàlla melal ci baax ci gëm yàlla ci ragal yàlla ci jaamu yàlla. ci bëgg doom aadama yépp yéene leen jàmm saa su nekk ngeen di dégg mu naan li ma yéene sama bopp laa leen yéene. Mm-hmm. kon au jëmmam jooju institution bi itam lañu war a mm-hmm. lañu war a xalaat. institution yoonu murit suñ ko néewalee doole fragiliser ko yaakaar naa euh, du baax ci réew mi. Mhm. du baax ci réew mi ndax yaakaar naa dinañ ci dikk. Euh, li yoonu murit liggéey ci wàllu cohésion sociale cohésion nationale. Mhm. suñ fragiliser ki nga xam ne institution bi nga xam ne moo nekk ci kanam yoon wi. Mhm. loolu dana ubbi bunt yoo xam ne euh, du baax ci réew mi. jërëjëf jërëjëf sëriñ Cheikh Fatma Mbacké mbokk yaakaar naa ne